man li yàgg na si man man damaa yàgg di génn damay dem ba ay Mali di wut ay der ay Burkina damay dem tamit Burkina ñooñu dama lañu jaay ay der mais lii tax ma ñëw projet la ndax damay am ay projet yoo xam par màggal kon année yi damay faral di ñëw si fii di wut si ay der waaw ñun toll suñu liggéey moom wax dëgg yàlla tollal nañ si benn projet moom mais nekkoon nañ si ay projet yu neex liggéey bi doxoon na trop mais si jamono yi ñu dugg nii suñu liggéey bi dafa tëju dafa tëju ndax ñun wax dëgg yàlla étranger yi ñun ñoo ñu téye ñoo téye suñu job te ñun dañoo nekk doomu réew mi màggee si réew mi juddoo fi yaroo fi mais ñun amuñu kenn koo xamante ni ku ñuy jàppale si wàllu nguur ñun ñun sénégalais si jeunesse sénégalais yi mosuma ko gis koo xamante ni nekk na si nguur mu mën leen dëmbale man mosuma gis loolu. mais ñun lépp lu ñu am la ñun ñoo koy may suñu bopp mais même du koo xamante ni si réew mi la nekk. njëgu dër nag fu mu toll nii moom non prix bi moom prix bi baaxul sax. prix wax dëgg yàlla baaxul damay bàyyi noonu mais baaxul dafa am ñoo xam ne ñu may wax lu si nekk sax mais baaxul waa liggéey bi lu ko daana mooy étranger yi la étranger yi ba ñuy jógee seen dëkk ñëw dugg suñu dëkk ñoom lu ñuy def suñu dëkk ñoom ñooñu ko gën mën a def ndax loolu yëpp suñu réew moo leen ko may ndax parce que ñun suñu réew jàppalewul ay doomam ñi nga xamante ñoo juddoo si bi réew mi jàpp lu ñu leen may ñu leen moyen joxu ñu leen moyen moo tax bu ñu toogee dine sénégalais bëggul liggéey ñoom ñoom dañuy wax lu leen neex ñun ay doomu réew bi lañu te dañoo mës a bëgg liggéey te lii dafa jaral ñu ñuy dem fu ne jar dem nañ fi fu ne dëkk bu ne yóbbu nañu fi mais nag ay étrangers ñooy ñëw ñun sénégalais yi suñu nguur di may ñooñu doole par rapport ak ñun ñooy ñooy gën a am sens di liggéey boo tax suñu marché lépp loo gis rek étrangers yi ñoo koy gañe ndax ñoo koy jël fii di ko chargé di ko yóbbu ay gana ay Burkina ay Mali mais pourtant ñun war nañu woon mën a jël loolu téye suñu réew. waaw maa ngi ko ma jógee Dakar ñëw ba Touba pour jënd benn kii moom yàgg na parce que ba ñu jëm dara ñu rek see man de PSA. parce que boo xool ñun ñu ngi suñu wàllu jumtukaay bi dër na ngi mooy suñu wàllu jumtukaay te Touba man de gis ngeen si rey. li si rey si def bu mu bëree. loolu moo tax ñu si jigéen te dara ñu xam moo tax ñu nga ne may ñu ko dañ koy jaay mais nag borom kër yi am na ñoo xam ne dañ leen koy may borom kër yi am na ñoo xam ne dañ leen koy may mais nag ñi ngi koy may ñoom dañuy ñëw di ñu ko jaayaat ñun moom amuñu benn dër bu fi jël wax nañ ñu koy may jël ñu koy jaay waaw dëri moom seeru dëri moom dañ ko laaj benn ñetti téeméer ñeenti téeméer juróomi téeméer si gën a ngan si gën a ngan na ngan na ngan mii rek moo des ñu lay joxe seen saako seen saako ko yàq si wàllum moom bi parce que ñu jàppale ko parce que ñun. waaw léegi am na benn usine bu nekk boo xam ne moo doon liggéey deri bu njëkk. pour Senda. waaw. avant Senda. Mm-hmm. y a des partenaires yu fi nekkoon. mais état bi jàppale Senda. Mm-hmm. partenaire bi nekkoon laaj nañu document yoo xam ne. ñoom mënatuñu jënd der benn usine moo fi nekk rek benn usine. Mm-hmm. amul senta amul lu ñu njëriñ day jël jëriñ du ko fay soo waxee ñu ne la xaas amul yaa ngi te am na yeneen usines yoo xam ne bu ñu leen jàppale woon tey jii jër yi dañ si war a mën a dund dañ si war a mën a liggéey am na bata bata mi ngi fi tey jii yow yaa ngi jënd dàll yoo xam ne bitim réew la jigéen saag yoo xam ne bitim réew la jigéen ñu ko amul ñu ko amul jàppale bata ñu jàppale ñu jàppale usines yi jàppale partenaires yi nga xam ne ñoo doon ñëw jënd der yi ñu mën ñëw di jënd di chargé waaw mais bu ñu leen bëggee laaj ay documents yoo xam ni dafay metti wala ay wet amuñu ko bëgg jël benn usine jox ko doole ñu senta te senta faale wu yëguñu yëguñu